asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di rafet rafetlu seen teewaay fii ngeen fii ci daayira Nahjul Xadaayil Xaaj a ah, xanaa di santaat bu baax rek ci seen teewaay di wax ni yéen a ngi foo xam ni yéen a ngi ci fi ñuy wax table bi lañ koy lañ koy dàkkantale fii nag lii sunu taxawaay mooy bëgg nañ ci kër sëriñ bi képp ku fi nekk heure boo ko yitteeloo muy lu tàng rek boo ñëwee nga fekk ko fi lu wel ni kafe lu mel ni ataaya lu mel ni meew waaye tamit dañ cee boole ay yeneen lu mel ni ay tàngal yu mel ni ay gerte pour tout tànk yi nga xam ni du ñu mën a jotee lu tàngali ñu mën leen koo séddale loolu moom mooy sunu taxawaay fii nii ci kër sëriñ bi dañ koy def 17 safar 18 safar ak 19 safar waaw. waaw ñun santaat nañ ci bu baax ndax liggéey bi dafa yomb liñ naan maanaam cant la ku ñëw rek dangay cant. kiy cant bu ñëwee fekk kuy cant rek liggéey bi day yomb dañoo bokk bëgg-bëgg moo tax amuñu ci benn problème amuñu ci benn problème ñu ngi ciy santaat bu baax a baax a baax amuñu benn problème xanaa sant leen rek di ñaanal Serigne Mourtada Ibn Serigne Saliou mu yàgg fi lool te ànd ak wér di wax nii yéen ñi nga xam ni tamit yéen a ñëw di def liggéey bi suñu borom euh, maanaam defal leen ay tawféex kon ni seen tur ni seen tur bi rek dafa leen ay tawféex ngeen yëg seen bopp bu baax a baax yëg yokkute bu baax a baax bala ngeen fii ñëwaat balaa màggal geen ñëw ngeen am yokkute bu baax a baax ci li ngeen di def ñu ngi leen di santaat bu baax. Mhm. waaw lune de moom xanaa mooy weer kon yàlla na ngeen doon weer yàlla na ngeen doon weer ci barke Serigne Mourtada santaat nañ bu baax di di rafet lu baax seen teewaay di ñaan rek gi nga xam ne moo dox seen digganteeg sëriñ bi suñu borom sàmmal leen ko. ba lépp lu ngeen xam da ngeen koy yóotu suñu borom defal leen ci lu kawe seen jor jaay na bi Moustapha barke Cheikh naa Cheikh Al santaat nañ bu baax a baax santaat nan bu baax a baax